mbokk yi ñaari mbër yaa ngoog 14 décembre Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye bu Fass ak ngoog mbokk yi Lagos Junior andi Jackson Junior ngoog ñoo waa géej waaye euh, ëmb ko ñoom Pape Thiam ci ginnaaw ñëpp xale yaa ngoog ndaw laa mujj neex. wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Pape Ndoye bu Faas Jackson Junior mbokk yi teel a 14 décembre stade Iba Mar Diop 19h30 abit baa ngi waaye sifflé abit Pape Ndoye ñoom ñaar ñëpp ngemb xonq lañ ngemboo waa Jackson ngemb bu bees la ngemboo avertissement Habib bi joxe na avertissement Pape Ndoye dina ko doon xëpp gàllal Jackson Junior Jackson moo ngeem moo ngeemul bees teg ci su mosom xonk bi Habib bi sifflé na Pape Ndoye dox na ci kawam Jackson reculé na Jackson Jackson door na ko ku Jackson door na ko Pape Ndoye reculé ah laabu ju neex laabu ju neex Pape Ndoye ngi dox dem ci kawam Pape Ndoye ngi dox dem ci kaw Jackson Junior Jackson reculé na <laughs> Pape Ndoye nee na ko tey du ma tegil benn tànk Pape Ndoye newoon na ko Jackson newoon na ko soo taxawee dëggal sa bopp làmb ji du yàgg Pape Ndoye Pape Ndoye doon na Jackson ñoo ngi xeex ñoo ngi xeex laa ilaaha illallaah làmb ji neex bi wute nag làmb ji fi amoon bay Jackson daw na jël ko Pape Ndoye pekil oh Jackson dugub bi baaxul Jackson Jackson si ñoo dugub bi baaxul ah xale yi dañoo ñemente xale yi dañoo ñemente Jackson si ñoo Pape Ndoye ñoo xeex ñoo xeex ñoo xeex. ragal naa kaw Pape Ndoye Pape Ndoye Pape Ndoye Pape Ndoye Jackson door na Pape Ndoye Pape Ndoye génn Jackson door na Pape Ndoye Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye laay sama xol sedd na <laughs> Malcom Malcom Malcom dafa tiit Malcom dafa tiit Jackson abi sifflé na Pape Ndoye à Jackson à droite aywa eh Jackson Jackson ne woon na ko soo taxawee dëgg sa bopp duñ fi yàgg <laughs> eh, Pape Ndoye Pape Ndoye dafa ndànk Pape Ndoye taxaw na lam foogoon ci Jackson du loolu la mu foogoon ci Jackson du loolu Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye à gauche Jackson à droite Pape Ndoye Jackson mbokk yi ñu fàttali leen ko ñoo ngi stade Iba Mar Diop tey le Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Jackson ñoo ngi doo ñoo ngi xeex kaw kaw laay laay la laa doo ñamante Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson doo na ko mu mu daanu Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye